asalaamaaleykum gars yi ñu chaag leen bu baax a baax di leen wax ngeen dal jaamu Sud Sport 221 laata ñuy ñëw ci xibaar ñu indi benn leeral mooy que Pape Gueye bi fasalu naa ne waa TAS tribunal territorial des sports kuréel boobee di àtte nag da ko teg benn daan bu war a fay 2,5 millions de dollars waaye nag yemuñu foofee aussi dañ cee teg ne du mën a jowante ñeent mois yi nga xam ne ñu koy jublu mooy que 4 mois de suspension yi nga xam du mën a jouer avec waa Marseille. loolee lañ fësal kon xaar leen ko mois de novembre kon ñu ngi ci ginnaawam ekat di ko dooleel bu fekkee Marseille bi nga xam ne FIFA tegoon na leen ay daan ne leen kat may amoo leen benn sañ-sañ ci 12 mois yi taaskat dafay mujj dakkal ndogal bu nu mel loolee mooy tax Marseille defal mi ngi commencé mercato mucc ayib loolee may ne lañu dalal ku ci mel ni Pierre-Emerick Aubameyang mu quitté gratuitement nag foo ci Chelsea xaatim contrat avec les Marseillais rejoindre na leen fee seen camp bi nga xam ne. mi ngi en Allemagne. Paris Saint-Germain noppi na teg benn offre ba 35 millions d'euros yu dugal ci benn jour soit Verratti l'italien wala boog naataangoom benn mooy Donnarumma bu ko defee ñu fay ko Man City ñu jaay le portugais Bernardo Silva. Al Nassr mi ngi gën a jege Eric Bailly pour man ko dalal waaye du ñoom donc Fulham Al Ettifaq Déséral ñoom aussi ñi ngi laaj yan yan condition mooy waralkat ñu amal déggoo avec les Red Devils. ba tax na kat ñu ngi ciy waxtaanee Nottingham Forest dem na benn offre bu ko defee kat ñu ma leen abal le portier bi nga xam ne mooy Den Ederson moom mi nga amul sans descente di fa ginnaaw gi ñëw André Onana. sa Manchester United jours ñoom nag ñu ngi waxtaan agence jour bi ngeen mooy Sofiane Amrabat West xam mi ngi ci yi ak waa Chelsea ñu ma leen jaay l'attaquant albanais bi nga xam ne mooy Armando Borja ndax concurrence man nag gàllankoor ci wàllum temps de jeu ndax Nicolas Jackson ma nga fa. wala bokk Nkunku Issa Kaboré mu quitté Marseille abalewaat nañ ko fee ci Luton Town la promis en Angleterre moom nag contrat mi ngi avec les Sky Blues ba 2027 waaye ci abal boobee comme le cas de amul benn option mooy que bu jeexee dafay delluwaat. Ryan Cherki moom nag bokk na ci joueurs yi nga xam ne Pep Guardiola yitti woon nañ leen dool boo ko defee mu mën a ñëw uutu Riyad Mahrez ginnaaw bi mu utalee foofee ci Arabie Saoudite. Edding Ten Hag moom kat eh, kii nga xam ne mooy Jonny Evans jommal na ko ca entraînement ya ba tax na kat voilà moom il est ouvert mu garder ko cette saison mu mën a doxal ndax bokkoon ci ay plan pour rappel Igor moom utali na foofee ci Brighton montant transfert bi ñu koy xayma ci 17 millions dërëmu bawoo foofee ci Fiorentina le suédois Anthony Elanga côté na les Red Devils utali club bi mooy Nottingham Forest. également en cas de départ de Bernardo Silva bu fekkee dafay jóge nañ la wax nag si disait nii ka koy utu nag euh, biral lañ tur bu ci mën Nicolas Barella le joueur des Nerazzurri toujours club bu saoudien yi Al Ettifaq de Zéral ñu ngi ci waxtaan ak xuus nañ ci lu yaatu ak waa West ñu mën leen jaay seen attaquant jamaïcain bi nga xam ne mooy Antonio Brighton ñoom nag dañu raisonné mooy kakat ginnaaw gi jaay nañ ko ci mën Declan Rice luy tollaat cent cinquante cent cinq millions d'euros Arsenal kon ñoom gis nañ bu baax kat ki yan mooy muy Caicedo aussi mën na jar prix bu nu mel ndax kookee di ndaw anglais amul lum ko ëppale ci wàllum talent ba tax na Chelsea bi am mi ngi ci ginnaawam bu ñu soxandikoo ci waxu club boobee kat faaw ñu génne plus de cent millions d'euros. ndaw anglais biñ naan James Ward-Prowse bi ràññee nañ ko ci wàllum coup franc yu mucc ay bi mi amal waaye nag club ba mbir mooy Southampton dañoo wàcc ci d bi waaye wóoru mu desandi fekk comme jour yu bari kat ndax talent bi am nekk na ci moom ba tax na West Ham ñee baral seen jéego pour mën koo dalal. Mikel Arteta ci ay kàddu mu ne nag Lionel Messi mooy joueur bi gën a xarañ depuis football di football loolee xalaatam la. Habib Diallo West Ham Brentford Nottingham Forest ñoom ñëpp nag bëgg nañ la passionné de génération foot bi waaye Strasbourg fam tegoon tànkam teggiwuñu ko faw ñu def offre bu mucc pour mu mën fa bawoo. ek AC de Milan ci tànk yooyee ndax bëgg na de bu 20 millions fekk waa Villarreal ñu jaale si attaquant nigérien bi nga mooy Samuel Chukwuemeze bu fekkee nag le potier Casa Sport bi nga mooy Alim Badara moom nag mi ci woon kon ñuy souhaité que bon chance. le portier italien benn mooy na Donnarumma moom nag voilà dañ ko fekk jëfam dëkk ak euh, soxnaam ñu cambriole leen mooy que ñu buntu xatal leen voilà def leen jëf ci ñaaw mooy que dañ leen yow moom sax am nay gaañu gaañu ca bëbban noonu lañ fësal nag ñi nga xam ne nag def nañ jëf yu ñaaw joojee kenn mujju leen gis ndax kat ñoom jël nañ fay objet yu précieux lu ci mën ay bijoux ay montre de luxe wala bokk seeni ay sac. Atiko Magic dafa bëgg a wàññi li ngeen mooy sa masse salariale yenn ci joueurs yi dañuy fay ko dafa xaw a takk dafa xaw a takku lay wax sax kon Thomas Lemar nag mën na quitter bu baax les colchoneros mën nañ ko abale sax club benn mooy Marseille mi ngi dafay jéego pour mën a dalal l'international français bi. Aris Limassol gàddu na raay mu njëkk ci taarixam mooy que Supercoupe foofee ci Chypre mu daal ñaari bal ci dara avec la titularisation de Mamadou Sané à 16 heures de waaye bu ku ci mën ni Landing Badji wala boog yenn gomis ñoom kat euh, mujj ñoo jowante kon félicitations à nos compatriotes sénégalais. coupe de tir premier tour kon moom mbir mooy Moussa Koné ancien joueur de Nîmes Olympique bi l'attaquant sénégalais bi club mbir mooy LASK ñoom ñoo daan juróom benn bal dara moom ca jowante boobee nag doublé la fa amal. la coupe du monde beach soccer eh, bi mi ngi amee foofee ci Russie kon suñ gaynde yi seen match bu njëkk sa vendredi dañu nërmeel face aux Iraniens 5 buts à 1 kon ça démarre mal ci atum 2023 ci World Beach Soccer ginnaaw ba ñàkkee africain face aux Marocains gaynde de Ngaarasila coupe du monde bi nag du yomb ndax ñaareel match bi ki nga xam ne occupé deuxième au niveau mondial pays européen mooy Russie moom lañu war jamalol jàmmalool samedi ñoom sax ñoo daan Émirats Arabes Unis 3 bi à 0 waaye lu ci mënta am ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax ñu dem ba jeex. comme ni leen ko fasile woon Moussa Niakhaté dafa amee gaañu gaañ seen match yi xaritoo bu ñu amal contre Valence ca mbagg ba waaye nag moom laata mu ñëwaat ci terrain yi dina toog 6 semaines kon ñu wax pronto rétablissement. bokkul ci plan yi Pioli bi am ndar na ko ci saison bi c'est les Rossoneri ba Fodé Ballo-Touré moo faw moo club pour mën espérer temps de moom nag mi ngi sàkku ci dirigeant yi waa ñu may ko ñaari wala boog trois fois mu réfléchir xool ba xam moom ak Azam lan la ñuy dogal ndax Bologne mi ngi ci am waaye aussi Fulham jege na lool pour mën a dalal l'international sénégalais bi. ik ñu jeexale ka xibaar bi lu ci mën a RMC Sport. foot mercato wala bokk euh, ki nga ne mooy Fabrizio Romano ña ngay fësal ne Paris saint dafa écarté Kylian Mbappé li ko waral mooy que mën naa ne kat euh, waxtaan yi jiboon ci àll xale yi fii ak eh, l'international français moo jur antu ndax te ñoom dañoo bëggoon mu xaatimaat beneen contrat bu antuwul nag dañ koy jaay ci mercato d'été bi ndax ñoom dañu seetaan benn yoon mu fay bawoo gratuitement président Paris bi noonu la raisonné woon ba tax na kat duñ ko boole seen tournée ñu war amal foofee ci Asie de même que Abdou Khadir aussi ci plan Luis Enrique waaye Kylian Mbappé l'institution ki nga ne mooy Florentino Perez président bu Real de Madrid moom kat mi ngi doon xaar situation bu ni mel li ci des rek mooy que ñu seexal waxtaan ak waa Paris Saint-Germain ba ñu mën leen jébbal français bi nga xam ne rêve ba mu nekkee ndaw mooy mu jiwante foofee ci Real de Madrid kon buñ maywul nag voilà somme bi mën na yegg ba 160 wala 170 millions d'euros ak ay bonus yi am dara nañ ko ci inclure waaye kii leen Mbappé ak dayoom mën naa ne bu ñëwee foofee ci Real de Madrid wàllum jaay mayom mën naa ne wàllum marketing tey mën na génne koppar yu takku on se rappelle bien Messi foofee ci Paris Saint-Germain wala bokk Neymar pour ainsi mën na ne wàllu marketing mën na génne koppar yu takkukat ci ndaw français bi nga xam ne mbébétam musuka nëbbu mooy mu rejoindre Real de Madrid bu gisee ku ci mën a Erling Haaland bi nga xam ne mën naa ne moom mooy wujjeem en Europe. jege na loolu jël ballon d'or bi moom xam na ne avenir am kat voilà foofee ca Paris la koy la la fay jëlee ballon d'or ndax Paris la ñuy lajj ci Ligue des champions depuis ba fa nekkee mi ngi bëgg a bëri naam jege woon nañ ko bañ waaye nag moom avenir am foofee ca Real de Madrid la ko bëgg a wóoyalee bu ko defee kat mu mën fa gàddu ay raay espérer gàddu li nga xam ne mooy Ligue des champions bi ak ay raay individuel tegu ci mooy ballon d'or bu ko defee fu ñuy lim ñoom Messi wala boog Cristiano Ronaldo kon mën naa ne du yàgg dara dinañ fësal Real dina def offre bu ko defee mu mën a dalal kii nga xam ne mooy Kylian Mbappé feuilleton bi chaque mercato ñu di ko waaye cette fois ci c'est du sérieux Kylian Mbappé dafay quitter foofee ca Paris Saint-Germain kon gars ñu yemale foofee xibaar yi joxante dig daje ba beneen yoon sur Sport 221.